asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar moo xam si Leewtoo TV la wasaare wala Bawol TV ah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp di jàmm tey nag gis ngeen fii ñu toog waaw li ñu fi indi nag kenn ki la muy Assane Ndiaye borom Bawol production moo ñu woo fi nga xam ne mooy Presse Café Presse Café nag bu ñu fi duggee moom faw ñu nuyu suñu ay nit yu fi ne ku mel ni mbay Diouf di mbër mu mag di doomu Bawol ñu koy nuyu di ko ziar yaakaar naa ko dugg day dem si moom waaye tamit du ma ko ñàkk mënu nuyu sama doomu ndey maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu ñëpp mbay moo nekk sama droit nii mbay guy gi xam ngeen ko école de Bada Dione Mame Balla bu Pikine Mame Balla borom top 5 mu ngi nii nekk sama gauche mu mel ni ki kon daal amateur yi Assane Ndiaye ëndeeti na li mu indi nag defe naa kuy dund làmb dina la neex mbay moom am na slogan bu mu jël maanaam kenn du ko téye day dem lu nekk na moom da ko effacé jàll loolu lay wax boobu ba tey te mu ngi koy doxe waaye nag daa dal ci koo xam ne moom freiné gu ne it na ko ndax ku ne gis na digganteem ak Tapha Mbeur daaw kii la kañ mars nga bu jëbëre yow nga ne le 23 mars nga daan Tapha Mbeur yow nga daan Alioune Sèye Junior le 31 mars kon moom ñoo bokk mars ba xaw ma nag ban mois la ñuy bëriwaat bi yoon waaye daal noonu la demee balaa may sori nag dinaa woo Assane mais damay bàyyi ñoom ñaar ñu nuyoonte ba pare après Assane doog a ñëw kan moo njëkk a nuyoo Mbaye Mame Balla maa ngi lay ziar. waa maa ngi lay dellu ziar waa di nuyu mbokk internet yi bu baax a baax di nuyu ñuy seetaan di waa presse café bi ñu fekk di la nuyu di nuyu mbokk journaliste yi fi nekk ak si yëpp quoi ak nekk ci commentaire yëpp di nuyu sama adversaire di nuyu waa Pikine di nuyu waa Guédiawaye di nuyu waa Gàddaay waa Minam nuyu sama am di jàmm nuyu sama mbokk Saloum Saloum bu baax a baax a baax waaw di nuy waa Touba fa ma jàngee tamit quoi xam nga sama taalib Sëñ Abdou Hakim la waaw ndongo ndongo tarbiyu la waaw man xasida ak alxuraan laa xam à part loolu lamb laa xam jànguma école jànguma dara mais di ñaan yàlla dugg si bisimilahi rahmaani rahim gén seeg alhamdulilahi rabi alamin ci alhamdu googu la ñuy taxaw wala ba ñu ba ñu di la ziar waaw Babacar wax ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi gërëm sama ñaari waajur di nuyu ñëpp di nuyu sama gaay di nuyu sama waa dëkk fa ma dëkk muy reefan maa ngi nuyu waa reefan ñëpp di nuyu waa bawal tout bu ma nee reefan nee naa di nuyu fa ma dëkk muy Medina di nuyu waa Medina Rue Thérèse di nuyu ñëpp di nuyu sama doomu ndey Abdou Jimbe ak sama booy Mandat ak Aliou sama grand di nuyu Assane Ndiaye di leen nuyu yéen waa presse bi di nuyu sama adversaire di bëggee ñëpp di ñaan yàlla dugg ceeg bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah rabil alamin am na solo Pala Diop tam ñu ngi koy nuyu mu ngi fi di mënaat ak Mbaye jàll président des entraîneurs ah ñu ngi koy nuyu moom tamit Mambal. dafa am lu ma dégg mbay di ko faral di wax ci làmmiñam maanaam day dem dafa ne ci yoon dee su ko téye te yow defe naa fi nga mujj xale nga téye muy Tapha yaa ngi dégg kàddu googu mbay di wax ndax am na lu ma la sànni léegi. waaw xam nga nit ku nekk ak euh, sa domaine ak nooy doxee ak nooy waxee quoi yow la concerné quoi man li may dund man la concerné moom li muy dund moom la concerné man bu nekk loolu moom nekk keneen tey li ma gëm ba tey loolu gëm quoi mais bu yàlla dogalee tey ma dal moom damay gën lu gën si man rek quoi. mais li nekk si moom wax dëgg yàlla comme li ma waxoon si bee paase laa wax rek li nekk si moom du ma ko gëm moom la intéressé moom la concerné mais man li nekk ci man man loolu laay gëm man la man loolu man loolu moom ma concerné. loolu moo la concerné loolu moo concerné voilà. parce que là moom benn instant nii xam nga waaw booy dem moom yóbbaale ak mu yëpp là am na machine am na victoire am na défaite mais am na lu ëpp solo mooy bu la kenn jéppi. maanaam bëri ci jom ak fulla quoi. jom ak fulla ak ci gor. maanaam yow kon su ma la déggee da ngay woo mbay mu ñëw ci jom ak fulla bañ a def non lenn ni ragal non amul lu ma koy conseillé moom du ma ko wax dara man sama bopp moom intéressé man man laa la wax man su may ñëw damay ñëw si jom ak fulla ak ngor mais xale bu bëgg a daan te daan la rek la gis doo ko wax dara ah, man daanoo gu ma daanoo goo mooy man daanoo gu ma kon du kii moo lay daan no non mbay mi mënu laa daan non ba te yaa fay rek man du budul moom ak keneen ko mu di doon pour guddi ma toll nii li nekk sama kanam alhamdulilah rabbil alamin sant bu baax. borom top 5 bu ñu ko waxee dañuy wax ku mën a bëre. macha allah waaw macha allah loolu la wax maa ngi nuyu sama papa Pape Mayel bu baax a baax waa waroon tijjee borom Dakar ak Carver kenn du moom maa ngi nuyu Abbas Ndoye président écurie Fass bu baax a baax su ma nuyoo Pape Mayel rek waaw mooy lool lépp mën na fa la waroon tijjee maa ngi jégalu bu baax a baax. mais techniquement yéen ñaar ci côté bëri. waaw no non gisé leen yéen journaliste yi. non yow kay yaay wax ak moom nag ñun mënatunoo si yéen a ngi jàkkaarloo. non xam nga kii man a moom li ñu am mooy arbitre siffle génn suñu diggante ma def yëfi góor mu def yëfi góor. mais pour l'instant fii moom yéen yéenay di yéenay yéenay gisé yéenay wax. Ah. yéenay xool ku nekk catégorie rek ku nekk calligraphie mu fi wane rek ku nekk mën ngaa gisé sa bopp. yow de jiñ nañ la borom top 5 ba di la ko wooyee. waaw macha allah waaw maa ngi nuyu sama bu baax a baax waaw si la si làmmiñam la jógee mooy loolu ko mbay kii ni ma ko dégg daa ni moo dàq bëri la jàpp maa ngi nuyu soon papa Bada Dione ah. hmm. waaw waroon naa ko njëkkee ah lépp moom la. Hmm? di di di nuyu waa ah, képp ku naa yokkal ma jaay la ah maa lay bége ñoom ñëpp a ngi sama ginnaaw. ñoom Dame Cissé Babacar bu Modou Lama gaa yëpp ah. Hmm. waaw namu ma dara. kii nag grand frère la te bu bés bàyyi xam nga lan laa koy wan. xale ak mag rek. xale ak mag lu fay xew. lu fay jàpp ko defaral ko dem sama yoon bu mu def sax ci boppam neen man mën na maa téye. Ah. bu mu def sax ci boppam dama ko bëgg a xamal leen rek pour mu bañ a yàqal boppam wala muy yàq dara am liñ ko fay. bu dee dafa am na ko ci faj te toog. est-ce que yaa may dégg. non dama lay yombalal rek. liñ ko fay bu dee am na soxla na ko ci fay te xam ne man liñ ma fay am na leneen lu ma ci def pare naa tegal nañ ma xaalis bu duubul liñ ma fay. Hmm. est yaa man boo ma gisee xam ne pare naa. tey suba suba boo suuflee woon ma toog ci deq gi loolu amul sax. demal ma ñëw gi mën nga cee toog. ma ne arbitre suufle kii ak bés bu mu mën a doon moo tee ma toog ci dën bi loolu moom mu neex ko mu naqari ko grand frère la nag dinañ ko jox cër beeg yëpp mais na xam ne sport amul ganaa frère. bu ñu xaatim rek danu koy dund mais bu jàllee it bu ñu tase woon ci mbed nii cëru grand frère laa koy jox ak yëpp. mais lu mu mën a def ci boppam rek damay bañ mu yàq xaalisam quoi. mais man dafa am lu ma lay laaj te li ma lay laaj Basir Mële da koy fekke fan yi ci làmb ji pël mii noonu maanaam gis ngeen fan yi mag ñi ak xale yi daa mel ni temps yi neexut ci gune yi de. waaw loolu mën naa doon ci gune yi nga xam ne amuñu condition amuñu doole ah mais ñun yàlla sunu borom dimbali nañ am nañ kattan am nañ condition mën na nañoo bëri fii ba suba te ñun sax yi dañ ñoo xamewut di bëri sax ay minutes muy yàgg. kon kii maanaam su la déggee lu gaaw nga koy daal. lu ma mën a xamal bu taxawee. man naa daw nag mu yàgg. maam Balla mi dina daw. a ah, sans dépasse yi moom rek. mais man moom lu waaye mën a xam moom na ko leer ne arbitre ba bu wàccee loxoom amul leen lu ma koy nëb naa ko damay def lii wala damay def lee bu nuy wàccee loxo maa ngi sa kaw. mbay kii mën naa bëri de. waaw loolu yëpp amul problème ñun loolu dañ koy lijjanti rek ñun ñu ngeeg suñ doole ñu ngeeg suñ xel am na luñ gëm lu ne si ñun. Ah. amuma leen lu may maayan ci moom instant bii. Hmm. est-ce que dégg ma lu daal arbitre bi na soufflé rek génn suñu diggante ñu xool ñu ba ba xam. xanaa loolu de mooy ku saw xob sànni ko fa la neex dalay sànni la wax de man na xaw ma fu mu lay sànni mbaa du la génnee stade bi kon. waaw mais moo lool bala la ba la juge rek. Eh, lim la wax nag maam Baal da cee war a wax nag dama lay sànni jàpp sànni fële. non dañu ne bisimilah ba. waaw rahmaani ba. fa lañ toll. waaw ji des na. dañoo ñëw pour présenter nii rek mais ku su nekk xam nga ka mën. nit ku nekk xam nga kala bu doole nit ku nekk xam nga kala dàq bëre fii nag tey neex na mooy dañoo def yëfu nit tey solo lu rafet xeeñ parfum moom mu xeeñ parfum xam naa laalu saafara xaw ma man nag man laalu ma ko comprendre nga kon tey dañoo def yëfu nit bu ñu demee ba si làmb jo ñu xajam boobaa dañ xam ko mën man dama hmm. ës ës si làmb Assane Ndiaye Assane Ndiaye xam na lu may wax man xeeb moom mbay guy gi de. Hmm. ku du moom sax du ma xeeb mais dama tarbiyu ci làmb am na mbër yu bëri ñuy war a mbëru grand combat fii ci làmb ji dama leen a war mbapat dama leen a daan daanati leen ba su ma ñëwee ñu tekk te ñu ngi ci làmb ji te di bëri xam na seen bopp yàlla moo dogal nag ñu dem ci làmb nga dem ba ci biir nga am dog-dog da nga koy yàlla xam nga lu tax parce que chaque jour nga xëy dem dese dese te kooku gënoo ko. la ngay julit chaque jour nga xëy dem tudd te kooku day gane si àdduna àdduna moom benn instant chaque jour lépp lu fi am rek jàngat la. mais bu dee wàllu bëre. wala wàllu fit wàllu jom. instant bi ñu toll alhamdulilah rabi alamin sama papa papa Mayel Diop dafa jël lépp na ma entraînement rek laa la sant. kese kese. man dama dégg ci biir waxam mu ne Babou soufflé woon léegi mu toog ci sa biir bi. waaw non ay loolu wax la rek man bëre rek laay def. Ah. man si ta si daara laa jàngee bëre. Ah. soo ko ñëw ci igri yi. tey jii man moom bu ñu bokkoon kër nii mën nañoo réer ba pare tëdd suba ba ngoon di bëre suba suba ba guddi gi ñuy bëre. kuy daan ku yëpp lay jël bu keroog. am dara. doo am dara affaire bopp bi non bopp la. da ngaa bëgg ni mbay amul xam-xamu bëri. non xeebul moo ko lim yor de. mais lim yor daa bëriwut kon. mais man damaa yor kele contre kele. kele contre kele. te moom kele rek la yor. waaw no moom kele la yor te man kele contre kele laa yor. kon de mbay la mu yor bëriwut bu dee kele kese kese la yor. non bëri na ay kele mais man kele contre kele la yor. waaw yow da ngaa yor kele yor contre kele. waaw. moom mu yor kele kese. waaw man yow boo ñëwee bu def ma kele. waaw xam naa contre kele bi. te boo ko contré. te waaw ma la contré kay mooy jeex na. mu ñibbi. top kon top léegi nag xamal lu ñuy defam. top la top 5 kay mooy ay dégg nga la mu wax contre yow moom daa jàpp ne yu roog yow benn kele nga yor. moom moo yor benn kaleem boobu de. ban long-longal boobu rek la yor. te loolu moom bés bu la yàlla nattoo ba ma jàpp sa tànk yi ci biir ndëndi estaat bi moom defe naa ne kenn du la fo njëkk. bu dee arène national la ñuy bëree nag moom fu ma la njëkk a jàpp moom bassin bi ci laa lay sànni amul sax négocier man du mbër mu nuy mboot bu dee nga nga jéem a wut beneen action bu dee sa loolu nga yaakaar long-longal boobu noonu boo boo seeti leneen. daan na ci mbër yu bëri nag danaa la daan ba ñibbi te doo yëg lu xew man du ma ñooñu man Babacar xale laa man dama jàng bëre ba man ko dama jàpp samay moroom duma leen daan leen moo tax tey may bëre kii. Hmm. waaw yaa ngi wax nag di jéem a xeeb ba ji waay di am yooyu yi ngay teg nii yëpp teguwul di jéem a dëggal sa bopp nii soufflé moom moo tee ma lijjanti la man jaaxaloo ma ci dara bu dee gàllaaj boo yeboo nga toog loo ci man mën naa duubul ba ma wax la ko tey ji yow man leen lu ma la siy nëbb nag sa xaalis moom bu ko jéem a yàq sax ci ay gàllaaj ak yooyu di sonn loo def def naa duubul ba toog ñi topp sama ginnaaw dañ maa yaakaar yow grand frère nga dem nga ba ñëw tegale say defet ñëw daan tafaa mbër mooy loolu nga xaw a ñëwaat nii sax li ma la doon laaja sax damaa dem ba ci biir rëccu ko de. parce que mooy lool parce que kii la war nga koo laaj moo ma jiitu ci lam mais dafa tegale ay defet daan tafaa mbër rek xaw a ñëwaat noonu ma laaj la ngay jéem a yàggal combat bi boo nangu woon bëri nañ daaw ma defaral la kon ba léegi maa ngi waaj a bëriwaat ak keneen bu ko jéem a yàq sax di dem naan ay ñaan ak yi xale la ñaan di jàpp mag moom yaa ma gën a xam mbay magi pikin yaa ngee toog di la déglu de ñoom ñoo ñoom ñoom Pala Diop man bawal a ngi sama ginnaaw ah. est yaa ngi may dégg waa bawal waa Medina ñëpp a ngi sama ginnaaw est-ce que yaa ngi may dégg aw ma leen lu may tiit ci kii wala lu may maayen wala loo xam ne am na lu ma ciy xoqutal wala len lu may hésité ci moom dama koy jàpp daan ko du ma bëreeg yow ay minutes ay secondes laay bëreeg yow te maa la ko wax fii tey nag booy boo nga def loolu sa bopp bu baax <laughs> man de ay secondes Assane Ndiaye de xanaa moo ñëw àtte ñu maam Balla xam man tam xam la moo neex kii lim lay wax yaa ngi koy dégg il faut nga tontu ko. parce que nag kii wul na boppam de. waaw waxu xale lay wax comme xale la moo tax muy waxu xale rek. ah maanaam xale day fooye de xale des fois mu sawara. waaw fekk du ko bàyyi. waaw waxu lay wax bàyyi si biir ba làmb ja. da ngaa bëgg a doon ci kawam. non man lu ma doon man xam naa ko. waaw bassin bi sànni nag di ko nangu. non loolu waxin la loolu waxu mbër la kii li muy wax lépp waxu mbër man am na combat bu nekk. bëri naa grand komba bu nekk. li ma bëri si ay combat bëree ko ci ay combat nit boo toogalee ne nga ne dafa daanu mais dawal nga wax ay ay victoire am parce que li mu am ci dafa bëri macha allah te ay ndaanaan daa war a wax li nga def ci ku daan yaaram deux parcelles. waaw ku daan Moussa Ndoye. ku daan jëlaani buy nga taxaw du fii di benn instant nga bëgg a taxaw nga fàtte loolu di bëgg wax ay defetam loolu xanaa soxor sax bu yàggee kii wax xale lay wax rek bàyyi ko ci biir. mbaa du kon wax ji daan na metti ci moom. non non amul solo mooy loolu ba le jour ji rek. Hmm. ba le jour ji waaw allah. ma tolloon sama diggante yow nga toll rek est-ce que dégg. booba xale nga woon ñooñu doon ay Moussa Ndoye du mag. Moussa Ndoye gën a màggat ñëpp. waaw li ngay wax mbay man lu may wax ak Moussa Ndoye sax dama la wax rek. ñooñu ba nga leen di daan xale nga woon jàpp leen daan leen. est ce que yaa ngi may dégg te buñ bëree dinaa la wan ne xale laa ba léegi gëmoo li ma lay wax mais nag yàlla na arbitre suuf lay génn suñu diggante dama lay jàpp defaral la man soxoreew ma la dara grand frère nga yaa ma may chance ñu bëre daane nga fi mbër nu ne seetaan naa lépp maa ngi lay seetaan yow dëggalal sa bopp daan nga sama grand Mbaye Diouf nag mi nefee na la leer ne lépp loo ko yenoon lu ko raw danaa la ko yen aw ma lenn lu may bàyyi sama digganteeg yow. barke alxuraanu karim kee sama mag la sama lépp la daan nga ko takkaan ko yenu ba taxaw wane sa bopp lu ko raw nag yow moom jàppal ne spectacle laay def ci yow ba doyal bàyyi la. mag nga léegi neex na dégg nga kon dañuy woo Assane Ndiaye spectacle la na def fooye. spectacle maay borom spectacle. yaay borom. spectacle. kon moom moomul spectacle. ma ne woo ko. ma ne ma ne woo ko. mboot mi mu lay dox di wax ne moom rek ngay bëre nag. Ah, moo tax ma la wax xale lay wax. waxu xale lay wax waxu xale lay wax bàyyi foofu. waaw kii boo nu ubboon ci saal mu abal ma. boo nu yóbboon géej mu abal ma barke seexul xadim boo defee ci sa bopp ne yaa ma doole yaay nax sa bopp bu ñu tëjoon ci lépp nga abal ma. entraînement maa la gën a ñimalu xotteku fuuf. barke arxuraanu karim boo foogee ne weñ yi ngay ne di yëkkati di jaju da ngaa foog ne yaa ma ci ëpp doole. yaa Pape Mayel la ko yor de. Pape Mayel xaalisu réew mi la yor rek di ko pasar pasaree ñun ñu ni jàppale dañuy yokk dañuy jaay di am bénéfice di nu jàppale est-ce que yaa ngi may dégg. waaw kay loolu la am lu ma wax rek man wéeruma ci kenn ku yor nguur ku bokk ci nguuru Sénégal gii di jéem a kii. man ñi may jàppale dañuy jaay am bénéfice jàppale ma. ñu ngi sant Serigne Touba bu wér Sénégal yëpp di nuyu waa internet bi képp kuy dund làmb ah, di nuyu presse bi maa ngi leen di siyaar bu baax a baax di nuyu sama xarit Ahmed borom presse café sama doomu ndey maa ngi koy nuyu di ko siyaar di nuyu mbay guy gi sama frère di nuyu maam Balla sama xarit ah maa ngi koy siyaar bu baax di nuyu képp koo xam ne nag yaa ngi si jataay bi wa ah, ñoom Babacar ak gaa yëpp waaw loo bëgg a xam <laughs> waaye waaw <laughs> waaw combat bi moom jafeen na lool parce que ñi ko bëggoon bëri na macha allah képp kuy promoteur bëgg nga combat bi mais nag xam nga yàlla mooy joxe wërsëg daal yàlla moo ma ko séddee moo koy sant yàlla bu baax ñaan yàlla nag euh, ñu dugg seeg jàmm mu jeex si jàmm xam nga combat bi li ma xaru ci dama ko tuddee kilifa euh, troisième édition ministre Matar Ba ko tuddee. moo tax combat bi mu jaralan ma lu ne ba yàlla dogal ma jot ci kon dama koy sant yàlla bu baax jël lépp jëbal ko monsieur le ministre Matar Ba moom laa ko tuddee mais jafeet na lool nag waaw torop waa date bi euh, dinaa dem CNC bëgg naa ko mois de mars incha allah mois de mars arène nationale si kàttanu yàlla waaw <laughs> incha allah te combat bi dinaan ci tegaat yeneen quatre grands combats képp ku xam Baol production cinq grands combats nga ko xamee incha allah rabi nañ ci tegaat yeneen quatre grands combats pour gën a jëmmal bis boobu incha allah rabi waaw Bébé Diène jox naa ko fourrière bu Grand Yoff mbooloo taxaw na non loolu bisu boppam lay doon incha allah waaw. <laughs> waaw non lépp luñ man rek incha allah rabi ñu ngi ci fii ak suba sax incha allah rabi dinañ dinañ taxawalaat beneen combat ci kàttanu yàlla ndax wax naan ak mbër yooyu ba pare xam naa bu bii paasee rek ñu jox leen beneen. Mhm. no man boo gi déggee li may wax yëpp pour arène nationale wax naa leen seerul arrêt national seerul stade bu neexal liggéeye la. xam nga lu seer frais de organisation moo cher ak colis loolu moo cher mais arène nationale bu ñu ko joxee 500000 loolu yenu na maanaa mais dafa am bés yoo xam ne 50 policiers mën na ko lijjanti pas 100 policiers 100 policiers 500000 la frais de organisation des fois mu nekk 500000 wala 475000 loolu moo seer mais arène nationale moom seerul neex naa liggéey. stade bi rafet na image yi nice na macha allah. waaw. xam nga làmb bawol moom euh, ñëpp xam na Iba Mar Diop moom yàlla daa dogal code bi dañ ko xam dañ ko téye moom Iba moom lu ñu fa mën a def xam naa gaa yi ñoo amul seetlu rek mais boo répété lu ma 10 combats dama tëj stade 10. mën nga si lim ay Sita Malaw Seras xam nga ay Marle Boy Bawol ay Mbay Diouf armée ay Mbay armée ambulance bi Thiès et cetera et cetera Iba Mar Diop moom lu ñu fa tëgg rek macha allah mais dañ koy sant yàlla mais nag arène national laa bëgg a def noonu si kàttanu yàlla ndax amateurs yi ma leen di gërëm ndax lépp lu ñu tëgg rek dañuy ñëw ndax xam nan li ñuy tëgg ndax ñun amateur lañ dañuy dund ak ñoom dañuy waxtaan ak ñoom li ñuy soxla ñu koy def combat bi lu na jaral. groupe yi tey ji lépp tey foo aw moom la ñuy waxtaanee mbay guy gi Mame Balla mais nag favori bi laa leen di laaj yéen yéen yéen yéen presse bi <laughs> man moom ay favori yëpp doo lijjantiwu ma ko man doonuma fi naan kenn maay lii wala maay laa leen laa laa seq kii arbitre suuf ma toog ci deqam gii amul leneen lu may hésité favori moom mooy mag kay na jël lépp rek ma jàpp ko daan ko mu jeex ku ne dem sant ñëpp di gërëm waa Sandaga Petersen Dame Cissé combat bi taxaw na fi mu ne nii day jël xaalis dugalal ma ba mu doy may lekk di ne bu jeexee mu dugalaatal ma mu nga siin di ma dégg sama xarit la sama doomu ndey la. Babacar bu moot la ma aw ma fayam ak moot la ma mooy lool. est ce que nga ma képp ku ne Petersen ak Ngopa sama papa di gërëm sama rakkitam Seer ngoom kooku day sonn ci man est ce que yaa ngi may dégg ak sama mag yi ne Colobane. Seex ñoom Seex mu ndaw gaa yëpp sëñ Modou Ngom gaa maa leen di nuyu képp ku doon bawal bawal nekk ndakaaru maa ngi lay béggee di la ñaanal jàmm di wax nga ñaanal ma ak képp ku naan yokkal ma jaay la man commerçant yëpp maay seen mbër est-ce que dégg fii ba combat bi jal nag booy jënd yére moom nang nga ko xoolaat nde lu ne mën na la cee fekk yaa ma gën a xam di béggee ñëpp di nuyu sama gars yi nag. non lamb moom amul favori quoi. lamb weeru ñaam bi la quoi. daggee moo loolu ko micro man maa ngi woo sama papa Malick Diop bu baax a baax. ak Abbas sama père Pari Ngagne baax a baax. mais lu la euh, président écurie sama nit la. sama kilifa la. sama combat bi passé ñëw na ba stade maa tax mu ñëw stade. Abbas moom moo jàpp si loxo président sama papa Papa Malick na ko àdduna ñëpp xam. dénk ma ko ak sama père Ngagne Diagne chaque chaque dimanche moom waxtaan mooy loolu conseil ma mooy loolu waaw maa waa Saloum sama waa dëkk waa Kër Mbadi Yacine waa Ñaari Lam waa Maxama di woo waa Ndaamaatu Touba fi ma jàngee Touba yëpp ba mu daj nag di woo waa marché Bes baax a baax ak waa marché Xelkom ak waa Minam ak waa Jokko waaw ak waa Akis bu baax di woo Cheikh Gueye Cheikh Gueye maa ngi koy bu baax Cheikh Gueye clinique ak Cheikh Diop ak Bamba bi ma àndal nii quoi ak ñoom booy Malick ñoom Bacci Ndoy ñoom Sidi maa ngi gërëm ñëpp di woo ñëpp ñëw ci làmb ji Cheikh Diop maa lay woo bu baax a baax nga dugal sa loxo ci làmb ji Amasi Espagne Issa Bol Espagne waaw ak euh, Dame Thiam Italie di woo sama gars yëpp waa diaspora bi waa Pikine nag moom saa yi moo loolu mention spéciale Pikine yëpp seize communes yëpp maa ngi woo ci combat bi ñëw jàpp ci parce que làmb ji fan lay amee arène national lay amee damay dox dugg ci stade bi incha allahu rabbi def bu cur ci kàttanu yàlla kenn mënuma ko teree def ci kàttanu yàlla. joxante leen loxo.